thank you day soxal Koungheul mais saa su ne di ci dalal benn doomu Koungheul yi waxtaan rek moom ci domaine tey nag dalal gan mu ci politique la ñu mën waxtaanee ku gis ki ñu dalal xam ne bokk na ci camp wu Mayacine Camara mooy ñu nga xam ne te moo nekkoon le maire sortant fii ci Koungheul Euh, ñi gëj ko gis nag tey nag ba mu jaaree Koungheul nag ñu fexe invité ko suñu plateau pour waxtaan ak moom ci li xam ne moo fi jot a jaar ci campagne bi ci dugg-dugg yi lan lan fi am jour élection yi nuñ ko amee ba mbir mi xam ne am na ba beneen maire bees ñëw ci Koungheul ci foofu itam am na ay questions yoo xam ne war nañ ko ci mën a laaj ci yu bëri bëri bëri loolu moo tax tey nag ñi dalal ko fii ci kër gi muy Mamadou Diouf di Kaaw duñ ko présenté Euh, merci beaucoup euh, PDG Matar avant ñu nuyu Koungheul ñu nuyu la yow nuyu euh, sa mbokk techniciens yi fi nekk yëpp mhm. waa xibaaru bambou en question nuyuwaale mbokku internet yëpp mhm. mbokk Koungheul mbokk Sénégal mbokku àdduna bi yëpp mhm. merci ok jërëjëf muy nuyoo mbokku àdduna yi mu ñu koy démarrer saa su nekk ci émission bi mais rek wax bi tey première question bi rek day ñëw seulement ci élection yi xam ne moom lañ génn muy élection 23 janvier yi ñu leen fal maire yàlla def ñu fal fi meeru bees mais balaa ñëw ci meeru bees bi nga wax ñëw rek ci déroulement bi campagne bi la nga ñu mën a wax ren ci campagne yu ren bi xam bii je crois que euh, li ñu ci mën a wax bëri na Matar parce que vraiment am nañ ci ay jàngat yu bëri mm-hmm. vu l' expérience qu'on avait sur les élections passées waaye élection bi moom euh, dafa am yu bëri yu bees mm-hmm. dafa am tamit yu bëri yoo xam ne dafa ñu ci dab donc li ñu ci mën a wax bëri na euh, mën nañ ne rek ci gàttal su fekkee dañuy dem directement ci départ bi. Mm-hmm. on avait les élections en mai wax dëgg yàlla ku xool Koungheul xam ne euh, on avait la majorité. Mm-hmm. Euh, en réalité. soo mm-hmm. xoolee si si dignitaires yi. ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk Koungheul ci quartier yi soo xoolee aussi si côté popularité nga xool activités yi ñu jot a def nga gis nga nga évaluer ko. gis ñun ñi nga xam ne ñu ngi tourner autour du du du maire ministre. Euh, li ñuy drainer si fóol man personnellement ak ñeneen ñu nga xamante ni bëgguma tudd ay tur. Mhm. pour bañ a mais ñun ñëpp pour dire vrai ay njiitu structure yu mag lañ ay ñu ñàgg yàgg ñu am ñu ànd ak ñu jàpp di ñu jàppale lañ mais ñu ñu ñu crédible lañ. Mhm. ñu dëggu lañ ñu jub lañ ñoo xam ne nit ñi euh, gëm nañ leen woolu nañ leen. Mhm. donc loolu mooy. fii to balaa ñuy commencé donc loolu moo réalité bi gis nañ activité yi fi def yëpp mais ci biir am na yu bëri ci xew soo bëggee mën nañ si ñëw benn par benn ci la askan bi gën a a xam si biir dalal gan comme ni ñu koy defee gan gi yow kese la te du ñu war waxtaanee rek mooy campagne bi ñëw ba ci élection yi sa biir wax dégg naa nga ne yéen fi yéen am ngeen yaakaar ne yéen fi nekk mais ñu gis luñ gis si jour élection bi mosuñ ko gis kon boobu lu nekk toon lu virtuel wala lu lu dëggoon la wala mu demee noonu. waaw moom laa lay wax ni léegi xam nga facteurs yi dañoo bëri mhm. euh, te facteurs yu bëri yi mooy li yàlla di wax rek lu ñuy wax rek souvent euh, yàlla mooy jël nguur euh, créer condition jox ko ku mhm. mais ñun ñi ñëpp xam nañ ne facteurs yi bari na. Mhm. facteurs yi dafa dafa suri am na si yoo xam ne sax mënuñ ko tudd ñu ci mën a wax rek mooy benn bi si jiitu mooy le fait que ñu ñu seetaan. Euh, ay nit def ay déplacement d'électeurs te loolu am na preuve. Mhm. y avait des élec ay am na yoo xam ne demoon na ba ci loxo autorité yi. Mhm. wane ne ay nit ñoo ko détourné ba mu amoon ay enquête ba léegi euh, mujjul fenn donc loolu preuve la. Mhm. moom mooy benn bi nga xam ne moom moo si jiitu te ku xool jour élection yi yow en question gis nga ne am na ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi voté te xamoo leen c' normal. mais su bëree tamit si benn koñ xam nga ni c' est c' pas normal te ku xool fichier bi xool ñun li ñu daan am pour gagner les élections mooy suñu électorat manqué wul suñu 2200 yi. soo soo remonté def historique bi da nga xam ne suñu électorat euh, manqué wul. loolu mooy benn peut-être am na lu yokk ci élec électeurs yi yoo xam ne maîtriser wuñ ko mais aussi beneen facteur bi ci tegu mooy euh, euh, le sage dafa dafa dafa jëloon décision bàyyi ci faveur peut-être keneen ku bokk benn bokk yaakaar. Mm-hmm. muy keneen ki nga xam ne moo ñëw si liste bi muy président Assane. bàyyi boobu ñun ñi nga xam ne ñoo ngi doon confectionner les les les listes am parce que daf ñuy dafay tax amuñ assez de place pour mettre kilifa yi ñu am ñëpp te loolu dafa dafa jur benn frustration moment yooyu. Mm-hmm. te frustration yi gën a garaaw mooy ñenn ñi nga xam ne ils sont frustrés. Mm-hmm. sans raison euh, politique. parce que dañu sanctionné kii deful dara lu baax wala jubul wala baaxul wala liggéeyul non mais dañ ko rek parce que intérêt personnel dugguma ci liste bi wala fi ma def ci liste bi baaxul ñun ñenn ñi rek ñëw sax toog ànd ak yow mais liggéeyuñ liggéeyuñu la. loolu loolu constaté nañ ko. vote sanction euh, waaw vote du vote sanction vote sanction la am na si biir vote sanction am na trahison am na. yu bëri am na fact moom naa lay wax ne facteurs yi facteurs yi mataar. Mhm. <laughs> dañoo bëri su ma ko doon wax fii peut être bëgguma euh, dugg si yenn détails mais facteurs yi facteurs yi bëri na. Mhm. am na aussi euh, li ñu wax assas de conscience li fi nekk li fi daanoon ci ay. yéen a nekkoon au pouvoir kanaa ngeen def. ñun ku ñu xam xam ne dañoo mës a xeex loolu man du ma mës a dem di def. passage de conscience mais gars ko jiñ dañu ne Modou Diouf dafa yor ay cinq francs bi euh, dama lay dama lay laaj ndax mm-hmm. yow mos nga ma gis élection may jënd nit au contraire ñun mm-hmm. ñoo doon nekk ñi nga xam ne ñoo doon xeex loolu ñoo doon xeex loolu mm-hmm. donc ku xam Mayacine on avait même pas d'argent Mayacine ministre réseau ferroviaire la yor <laughs> amul ay amul assez de moyens ku ko xam-xam ne li mu am yëpp Koungheul la koy jox en vrac dimbale nit ñi si sutura ñun aussi lu ñu am ñëpp dañu koy indi parfois dañu am sax <laughs> problème problème xaalis te yàlla wërsëgal nañu dañuy am xaalis bu bari eh, lu ñu am dañ koy joxe ba euh, élection yi amuñoon lu ñu jëndee ay nit ñëpp ñu ñu woteel tey j'en profite pour euh, remercier leen gërëm leen seen ngor seen gëm-gëm ak seen jub seen dëggu ak gëm Koungheul moo tax ñu voté ñu mais c'est pas parce que dañu ci jënd benn doomu aadama au contraire nit ñi no doon ñoo ci doon ñàkk seen seen alal mhm. voilà facteurs yi ma doon wax dafa dafa bëri mhm. au delà de euh, euh, confection liste yi am na asa de conscience bi am na aussi euh, naagu bi mhm. dañu dañu dañu dañu naagu woon mais asa de kii bi aussi aspect dafa amoon aspect pratique au culte yoo xamante ni ñun ñëpp seetlu nañ ko de visu yi ñun ñëpp gis nañ ne amoon na pratique au culte yoo xam ne Euh, euh, du ñu ci sori. Mhm. mais c'était c'était extraordinaire c'était extraordinaire. Mhm. donc donc loolu aussi amoon na campagne de diabolisation boo xam ne autour de de cette équipe. et bu yu doy waar si suñu biir amoon nañ ay ay ay ay jafe-jafe yoo xam ne c'était des incompréhensions ay détails yoo xam ne dañu xam ne lii nii dëkkul suñu dëkkul suñu biir. facteur beneen bi ci gën a mag mooy expérience yu ñu mës a am ci élection yëpp on l'a pas exploité lépp lu nga xam ne naroon nañ ko def ci biir campagne bi presque defuñu les 2 pour cent. ok donc loolu mooy concrétiser carte yi pour mu dem ci électeurs yi parce que comprendre nañ les types d'électeurs nu ñu wutee. Mhm. ku ne xam na ne Mayacine n'a pas mouillé le maillot. proximité euh, demul ci fi mu demul bëri na si ay groupe wala boog ay euh, gros électeurs yoo xam ne. loolu dafa dafa dafa dafa waroon def. lan moo koy firndeel li nga wax moom tey. lan moo tax erreur bu ngeen def noonu. kon tey bi nga dégg ngeen wax bu ngeen ñàkkee élection yi yéen am ngeen ci part de responsabilité bu rëy parce que fi ngeen waroon a jaar jaaru leen fa lan mooy lan mooy dekk loolu waaw loolu li koy indi mooy type d'électeurs yu différents yi yi nga xam ne dafa wutee euh, mu am ci bu mag boo xam ne xooluñ ne euh, Mayacine lii la def si dëkk bi xooluñ ne fii la ko jëlee xooluñ xooluñ xooluñ xooluñ te ñu am si suñu biir. kon programme xool kenn daal. non fii moom programme xool fi nit yow da programme mu ñi ñu ah, fal. mais yéen seen programme. fekkee seen seen programme. yéen on a étalé ñun suñu suñu suñu donc am na ñu ko gis. Mm-hmm. mais quand même li muy wane rek mooy la pauvreté actuellement. Mm-hmm. Euh, sori na Koungheul te ku xam Koungheul xam ne vraiment dans l' Afrique subsaharienne bokk na si département yi gën a pauvre. Euh, euh, bokk na ci lu ñu jural aussi yenn yenn yenn yenn yenn jafe-jafe yi mhm. mooy xaalis bu bëri bi ñu fi indoon ak tamit euh, arme non conventionnelle yi nga xam ne moom la ñu doon utiliser te ñu heure bu ñu jógee nar a jëf suñu kilifa nañu déedéet bàyyi bàyyi leen gis ngeen attaque yu fi am gis ngeen jafe-jafe yu am te loolu dafay riir bi dafay yóbbu benn benn pourcentage des électeurs mhm. ñu nangu ko donc mais nag yooyu yëpp li ñu li may wax rek souvent souvent yàlla mooy créer condition yooyu. Mm-hmm. créer lu mat ay 17 facteurs yoo xam ne benn bu nekk mënoon nañ ko éviter. Mm-hmm. te buñ ci éviter woon ñaar rek gis ngeen résultat yi résultat yi ni mu demee. Euh, moom kii bi làpp yi métti euh, parce que lu mu sàmm Koungheul la gis 24 bureaux de vote yëpp ngeen perte parce que lu mu sàmm Koungheul moom moo fi am pendant les élections. ok lu mu sàmm Koungheul moo fi am. Mm-hmm. ay saafara yu ñuy tuur si ay ay mbir yoo xam ne ñëwee ma ko sa wax ci télé jaru ko parce que c'est pas c'est pas important. ay ay ay nit yu song ay nit seen kër di di di leen di leen di dóor di leen di intimider jour élection yi assiéger les les les les les les trucs et que les autorités te seen làmmiñ kenn waxul li fi musta moo fi musul am mus nga fi dégg éveil veille élection ay déplacement électeur bañ jàpp ci ay ay carte mus nga ko dégg Koungheul. Mhm. loolu musu loolu loolu musu fa ah, amoon na ci élection ah oui yow sax xam nga xam nga xam nga si dara parce que information passe partout. ok ci jour élection bi ñu gis ne métti na lool euh, mbir mi métti na gis nañ na ngeen dugg génn def loolu loolu fi tamit jour boobu ban la ban jàng ngeen def ci jour élection yi balaa ñoo ñëw ci après campagne bi après après élection yi. Euh, non jour élection yi li ñu ci gis rek mooy euh, ay pratiques yu ñu mënul wax si si télé sincèrement parce que day mel da ngay weddi. Mhm. ñi ko doon def xam nañ. ñit ñi ko doon dund xam nañ. Euh, genre pratique boo culte bu extraordinaire commencé ko ci suba si bu si bu si guddi bi. lan lan nga seetlu ci loo gis soo gi. non lu bëri lu bëri lu bëri lu bëri lu bëri lu bëri Matar yooyu c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas am na lu gën a am am solo loolu pour man. Mhm. que di wax benn par benn. ñoom parce que non boo gisee ñi gën a dalal tey gën a mën waxtaan ak yoon euh, li nga wax da ngeen avant da nga am lu ngeen def mooy nekk ci carte yi fexe xale yi am kayit ngeen préparé ba téye nay dëkk bi seen loxo la nekk jour ji ñëw. ñu mel ni ni yéen liggéeyulee woon dara kon donc bu ngeen ñàkkee dara c'est vrai que nangu ngeen ko ba félicité ki xam ne. loolu laa lay wax ne la facteurs yi facteurs yi dafa bëri bëgguma woon tudd. Mhm. mais tu as da nga jàkkaarloo koo xam ne euh, jombul wax lu dul dëgg daje groupe ndaw créer ay contrat fictif pour ñoom seen waajur yi ak ñi nga xam ne ñoom lañu yaakaar amuñ des gens des jeunes désespérés ah, yaakaaruñ dara seen avenir. Mhm. nga promettre leen wala boog nga signer leen ay contrats yoo xam ne c'est des contrats fictifs bon si li ma jàpp parce que ni ma jàpp ne administration noonu lay doxee. Mm-hmm. du fu nekk nga mën a toog du du nekk nga mën a defee contrat. Mm-hmm. nga signer ko ay nit. cela veut dire man xam naa si ay boy yoo xam ne gëmuñu gëmuñu gëmuñu équipe boobu mais seen avenir la xool. Mm-hmm. te loolu da leen koy nangul. te di ñëw bëri loolu loolu loolu. loolu du ko mës a def. mais loolu day wane mënuñu am seen liggéey uti ko feneen loolu tamit war na mën a tax. ñun ngeen di ñu xaar ñun warloowuñ ak euh, euh, euh, mairie bi warloowul du compétence am transféré. Mhm. recruter ay ay jeunes. mais le responsable politique Mayacine Camara am loolu mu war ak les jeunes de Koungheul. yow sa bopp xam nga ne yow xam nga ne Mayacine a fait beaucoup si emploi waaye communiquer aussi. taxul taxul mu doy. Mhm. mais moment yooyu moment yi ñu tolloon noonu donc si quelqu'un s'engage pour faire des contrats yoo xamante ni. vraiment vous lee di ngeen dégg mu exploser léegi du yàgg du yàgg du yàgg dara te su boobaa nag ma woo ma ñëw nga ne ma waxoon nga ko. Mhm. wala nga message ma ne ma wax nga ko donc si quelqu'un ose mentir aux gens comme j'ai dit comme je dis souvent tu peux peut-être euh, mentir tout le monde mais pas tout le temps donc loolu su amee ci élection lu ne mën naa xew. parce que njiit li yore na alal ju bëri téye ko mun ko xoy nit ñi. Mhm. njiit li sañ na wax lu dul dëgg nit njiit gi. sañ na njabar doomu aadama yi njabar njabar dëkk bi njiit yi sañ na indi ay nit ñuy xeex di di gaañ di ak di leen di leen di leen di leen di leen rey ah? pour sa défendre pour sa défendre non du benn nit yi ñun kañ lañ fi ñëw mhm. kañ lañ fi ñëw jour bi ñu euh, infiltré Kër seen xëpp fa ay saafara xëy def caravane sànni xeer xaañ jabaram xaañ xaañ ñun ñëpp ba man am naa si am naa si gaañu gaañu fii boobu lañ boobu lañ boobu lañ ut ay nit. loolu loolu loolu te bi ñu leen utee tamit taxul <laughs> ñu ñu xeexloo kenn. Mhm. dañ yóbbu sécurité sécuriser madame honorable Fanta sécuriser Kër Mayacine ak un peu sama kër c'est fini xeexloo wuñ kenn. Mhm. parce que on avait pas des nervis avec nous on avait des agents de sécurité des professionnels yoo xam ne duñ sax dugg si loolu. moo tax defuñ benn dérive. Mhm. malgré li ñuy def yëpp gis nga ñu def benn benn geste boo xam ne dafa dafa ñaaw. parce que ñun Mayacine du nangu loolu du ko nangu. nangu loolu. ok mu nekk loo xam ne lu am solo la ci campagne bi kon gis nañ tey ñu doon laajte lan mooy problème bi di poser question yi lu tax élection yi ngeen ñàkk ko yéen ak yeneen am nga ci li ñëw di nga wax nga ne facteurs yi bëri na trop mais am nga yoo si jot a jund ci loolu après nangu ngeen ko le maire Mayacine Camara wax ne eh, nangoon na ko jour jaar ci plateau bi kenn ne Aline Badara nekk na maire mu félicité ko tey am na équipe bu bees bu fi nekk. tey Alioune Badara lii moom mooy mooy mooy le maire de Koungheul gis nañ ci nag commencé na teg ay quelques jalons nuñ ko mën a li mu def yow loolu loolu loo ci wax ci ma leen aw ma leen lu ma ci wax Alioune Badara lii actuellement moom mooy maire Koungheul. Mhm. loolu ñu ñëpp xam nañ ko donc jarul jarul jarul wax. Euh, li ma si mën a wax rek mooy <laughs> euh, moom mooy nekk le maire le plus nul au Sénégal. ah non si non dama xam naa xam naa j'ai pratiqué Alioune Badara yi. Mhm. ngeen baal ma si tur bi tudd sax euh, mu baal ma si xam naa ko xam naa ko bu baax xam naa yan compétence la am xam naa ses limites xam naa melokaanam personnellement xam naa jikkoom xam naa lan la xam xam naa lan lan la mën en question pour pour résumer. donc kooku xam naa ne on a comme ni ko doon xeexee rek bi ñuy wax fi benn euh, député ma ne leen député boobu je vais faire tout sauf Bokk Yaakaar parce que gëw ne war na mun a incarner le leadership départemental noonu laay waxee ne kii gëw ne mun na incarner leadership communal bi te dèjà présent euh, am na ay dérives am na ay ay détails yu bëri yoo xam ne ku la xamoon moom la la njëkk xam ne laaj boobu moom musuma dem ci Baduli pour ànd ak moom. mais gis nañ ngeen ànd ak xaaral ma terminer rek. Euh, yow alhamdulilah lu am seede baaxul keroog bi ñu publier liste législative yi. yooyu yaa ma recevoir. Mhm. ma def déclaration bind si dëkk yëpp toujours benn bokk yaakaar ak ak jeunes mhm. mhm. yow da nga wax ma tontu la donc bi ma la tontoo loolu dafa war a leer ñu bàyyi askan bi mais da nga revenir aat ne da ngeen dama lay delluwaat ne la ñoom li ñu wax dama lay man li ma wax mooy. seen ak cuune. ñàkk xam nekk ay novice ci secteur bi ba pare ñàkk a teey moo tax ñu wax loolu. mais ay 2009 ay novice ngeen woon. mais dañoo teeyoon. alors bul def ay questions yoo xamante ni c'est c'est c'est pas intéressant. si c'est très intéressant Momadou ne yoo xam ne 2009 dañoo 2009 dañoo euh, waaw le temps le temps mu ngi dem. 2009 dañoo novice woon mais dañoo teeyoon déggoo kenn jëm moo tax ba tey 2022 ñu ngi ànd ak yar boobu ci équipe boobu ñu fi wutu woon moo tax ma ne la du wax du ma wax lan lañu fekk si fekkoon si budget mais mais mais mais li wér mooy. rombutoon cent millions. xam nga tey lan lañ bàyyi si si budget. Hmm. quatre cent et quelques millions je peux même te dire précisément euh, ñaata lañ fi ñaata lañ fi bàyyi je pense bien si bi nga xamante ni moom lañ moom lañ moom lañ moom lañ mujjee wote ça tourne autour de euh, quatre cent soixante cinq millions. mais moom mën na ko revoir wala. mën na ko revoir lu tax revoir ko. ah non nañ ko laaj. lu tax revoir ko am na budget aussi encore une fois il faut que ñu jàngal askan bi xam ne budget c'est recette égale dépense mm-hmm. ñun li tax ñu mën a def loolu dañu prioriser les dépenses d'investissement que les dépenses de fonctionnement on a tellement de reports dégg naa tamit ñu ne mairie bi fekkul fi xaalis rare mairie ngay dem actuellement nii mm-hmm. je défie quiconque nga fekk ci caisse gi liquidité. dinaa la wax lu tax ñu war fa ñu war fa fekk léegi dafa am ay li ñu wax ay report mhm. ay ay report ay report euh, euh, d'exécution budgétaire maire maire buy def buy def buy def dégâts mhm. day vider ay kiyam te du exécuté mais dañuy wax def am ay report d'exécution budgétaire loolu ça tourne autour de vingt vingt trois je sais pas vingt trois millions et quelques si mhm. je me trompe pas am li ñuy wax fekk bi fekk bi aussi fonds la yoo xamante ni dañ ci éligible te loolu mairie bi nga xamante ni amuloo Euh, vraiment euh, doxalin bu baax wala mairie bu nga xam ne euh, yeeyoo woo ko ci kàttal mais doo am doo doo am doo am doo am doo am fekk fekk bi c'est c'est c'est ça tourne autour de je pense vingt et million millions je pense si je ne me trompe pas aussi. Mm-hmm. soixante dix après. soixante dix millions soixante dix millions. Mm-hmm. soixante dix millions soixante dix entre soixante dix soixante quatorze bugguma bugguma bugguma bugguma soixante dix la. 70 mm-hmm. ñu am aussi li ñuy wax PACASEN. PACASEN 74 millions. mën nga multiplier loolu. allez après dañu. loolu loolu liquidité la. Mm-hmm. bu nekk ci trésor. Mm-hmm. sans compter nag janvier ak février bi nga xam ne collecté nañ ko te exécuté wuñu collecté ngeen ko ci. Euh, collecté nañ ko ci ci recettes yi ci budget bi la bokk. Mm-hmm. te te exécuté wuñu ko. lu mu dee dee on a laissé plus de deux cent et quelques millions bon du wax chiffre parce que. Euh, defuma calcul moo tax ñi may déglu nañ ma baal su fekkee. mais report yooyu noonu report yi fekk mën nañ si ñëwaat comme Pakasen bi dañu gis ne ngeen commencé ay cantine ci marché bi cantine yooyu biir euh, avant campagne bi mos ñu laaj ko équipe municipale bi ñu pare nañ ci biir marché bi pour ko loolu noonu ci report yooyu bokk encore am na ay chantier yoo xam ne ba léegi mu ngi demul lu ci mel ni foyer des jeunes bu Koungheul ba léegi kenn xamut lan moo tax mu taxaw yooyu yëpp ay problème la loolu mooy report yi wala loolu ay ay yoo xam ne da ko mun na amul mënut a eggale parce que on est liquide am nañ liquidité déjà li am solo mooy ñu leeral lan moo tax. lan moo tax ñu mën a fekk. Mhm. ay chantier wala ñu mën a fekk xaalis ay report sur si yi. Mhm. c' est parce que le maire dafa privilégier dépense de fonctionnement dépense de de de de d' investissement que fonctionnement. loolu moo tax tey budget bi mën a yéeg parce que bul fàtte ne on a fait pas mal d' investissement yoo xam ne mooy tax toujours budget bi di budget bi yooyu ngay wax. au au lieu au lieu au lieu yi ngay wax organisation euh, euh, structurelle lépp lu nga xam ne ay recette recette fiscale la ñuy ñi nga xam ne ñoo doon fay ñëpp parce que ñëpp aussi bu ñu mënoon nañ a fay comme taxi moto yi mais aussi ñi nga xam ñooy fay ay impôts si seen si seen dëkk mm-hmm. euh, à travers les délégués et cetera donc loolu mooy lu ñu fonds propre bokkut ak li nga xam ne ay ay ay fekk la ay pakaseen la ay yeneen la yoo xamante ni euh, euh, li ñuy wax euh, kii tamit éligible da nga ciy éligible pour nga mun ko am mooy yenn yi nga xam ne sa sa sa mairie dafay am doxalin. bu nekk ci jaune bu rouge mu. day nekk ci doxalin bu baax bu baax pour mun mun pour mun ko am. bokk ngeen si ñooñu. ah mais kon duñu am ay fonds yoo xamante ni dañu ko alloué. donc au delà de ça on exécute à presque. <laughs> à un niveau très, très, très, très raisonnable mm-hmm. à travers le payeur, mm -hmm. le budget, ce qu'on dit les fonds de dotation, fonds de concours, etc. fonds spéciaux yëpp dañ koy doxal comme ni ñu ko war a ni ñu ko war a ni ñu voilà ok mu nekk lu am solo di wax rek mbokk internet di yéen ngi seen émission dalal gan comme ni ñu koy defee ay bés yu nekk tey nag ñu demaraat ko ci politique dalal Mamadou Diouf Dikaw dégg ngeen waxtaan bi ñu sori euh, mais dañuy ñëwaat rek ba léegi rek ci ci mairie bi la ñuy desaat mm-hmm. ci passation de service bi askan bi demandé que ne moom mu koy demandé le maire sortant ba léegi Maya ñëwul pour def euh, passation de service tey bu ñu gisul Maya bu mën nañ la ko laaj sax moo tax euh, le maire ñëwul def passation de service bi loolu man toujours su may wax damay wax ne du ma wax ci turam parce que tout simplement euh, moom mun na muñ lu nekk lu ko ni def mun na ko muñ. Mhm. mais naa sama xalaat ak tamit en tant que conseiller ak ku bokkoon ci équipe euh, le maire bu doon ñëw normalement bu doon ñëw pour def passation de service man dafa war a jaar sama kaw jàll. pour pour plusieurs raisons normalement la wax ma ne loolu moo am. pour plusieurs raisons. Mhm. Euh, lu ma war wax loolu man la engagé. Mhm. man toujours xam nga ni j'assume mënuma mënoo am. ku la wuutu koo xam ne ni mu la wuutoo du début à la fin dara jaaru ci yoon. mais wuutu yow yow mi déglu ma yow mi yaa wax ne jour bi résultat yi feeñee moom moo ñëw fii def premier acte. Mhm. traditionnel. Mhm. félicité ko. Mhm. dëgg la wala du dëgg. waaw jaaxle ma yaa ñëw ba ci plateau bi fii. kooku kooku mérité na entre nous na. avant ngay def passation de service ak moom nga dem vandaliser ay buntam génn ay bagages am xaw yi sutura bureau yi mérité na. ses proches collaborateurs ñi nga xam ne pour nga mën a def benn euh, passation bu bu bu honnête bu sincère bu normal il faut que ñëpp joxe seen euh, seen seen seen def defal la le point. Mm-hmm. service yëpp. Mm-hmm. chef de service état civil chef de service assainissement. Mm-hmm. Euh, le comptable matière ainsi de suite ku nekk defal la situation. pour nga mën a def lu lu concret ñooñu ñu ñëw seen ginnaaw daj seen bureau yi génne seen bagage. ne ma di baax loolu amul benn beneen bi devant le l'autorité devant les gens. ñuy def ay pratiques occultes yoo xamante ni lal ay bagages ci affaire yi ay affaires yu salté yoo xam ne si nous sommes en vingt unième vingt unième siècle mm-hmm. di tuur ay saafara ci ci ci ci ci ci ci ci ci bureau et yooyu yëpp mun nga ko boole yow yow mun nga boole yooyu yëpp mm-hmm. jiitu si jaar kër waa ji sànni ko ay sànni ko ay xeer xaañ njabootam mm-hmm. yooyu yëpp nga boole ko pare continuer di def la même chose ses proches collaborateurs hmm? nga xam ne yow yow ñoom yow ñoom ñoo la gën a taxaw ci ci gestion municipale. Mm-hmm. nga ne da nga bëgg a liggéeyal dëkk bi nga ne da nga leen di affecté ay ay juuti et cetera. kon loolu la dina si ñëw waaye loolu loolu loolu loolu mérité na. Mm-hmm. vraiment waxuma sax en réalité li nga xam ne mooy dajji bunt buntu bureau bi nga xam ne loolu délit la man si li ma ko jàpp parce que détrition la te bien yi fa nekk ça appartient à. mais je crois que autorité muy teew. bi muy daj ji bunt. Mm-hmm. fekkee kuy daj ji bunt ah, laaj ko ba pare laaj ko laaj ko yow après nga laaj ko. bu fekkee bi muy dajji buntu autorité bi mu ngi teewoon konoon lu ñu oote lu <laughs> ñu yooxu fu nekk waaye yow nga def li ngay def ba pare dem di yooxu fu nekk naan nañ ñëw passation pour suul jëf ñu def parce que xam nañ dañoo teeyul dañoo teeyul buñ teeyoon mhm. dañ leen lay jox lenge yi gunge leen du pour ñoom mais Koungheul moo tax parce que Koungheul aussi vraiment li ñu fi def mata mhm. euh, yaa ngi wax sànq dañoo yàq dëkk bi Koungheul li ñu fi def mhm. mooy faire disparaître les euh, dépôts sauvages sën yi ñu jëlee ko fi ci wàllu assainissement Koungheul li ñu fi def mooy taal lamp yi ba ci gitt yi lamp yi di tàkk même bu fekkee am na ay ay poches yu des Koungheul li ñu fi def mooy tàllal ndox mi quartier périphérique yëpp am am ndox même bu fekkee am na ay poches yu des. Koungheul li ñu fi def mooy tabax maternité Koungheul li ñu fi def mooy créer ci wàllu administration ay quartiers yu bees pour quartier yi gën a mën a fluide. Mhm. Koungheul li ñu fi def encore une fois mooy créer ay écoles Koungheul li ñu def ci éducation en réalité mooy vraiment euh, ñoŋal euh, euh, ressources yi nga xam ne moo jëm foofu. ba ñu mun a jur année bi passée Koungheul la région de Kaffrine par Koungheul ak Ida euh, nekk deuxième au niveau national je suis en en trente sixième. Koungheul li ñu moo tax tey ñu am ay cadres yoo xam ne actuellement euh, ñu ngi jàll université parce que am nañ ah, ñu ngi leen soutenir si ay hébergement ñu ngi leen soutenir socialement ba ñu mën a maintenir rester à l'école ba mun a ba mën a am ay ay ay maîtrise ay ay ay licence ñi ay doctorat ay ay doctorat mm-hmm. loolu la ñu def Koungheul. ainsi de suite ainsi mais du leneen loo xamante ni mën nañ ko. sanction bi ngay wax ci biir élection bi Koungheul li nga fi def tim nit ñi nee ci cax caxte suuf si tax na ñu bëri tey mer leen ba def vote sanction loolu tim je crois que bokk yaa yaa tudd suuf mhm. yaa tudd suuf le maire avait pris son courage en main mhm. d'auditer parce que daf ne woon sax jaru parce que man moom nee na ku ku xamante ni am na problème suuf si dëkk nga dem porte plainte gendarmerie ñu jàpp am affaire yi wax ci rajo wax ci mbedd bi dafa am dafa dafa dafa dafa dafa bëri. Mm-hmm. nañ duñu dem porte ku ñu am problème suuf da ngay dem porte plainte ñu ko def. comme si mënut doon jàpp ko. donc loolu la meroo mais finalement ñu ne ko loolu jaarul war nga xam li xew mu engagé audit je prends en témoin euh, euh, Père Sall. bi nga xam ne su sama maam la sax mooy euh, papa yi tonton Tafa Sall. Mm-hmm. ak le délégué de Diamaguène nga problème mu suuf Koungheul. Mm-hmm. santul Camara lii la sant te bu ñu creuser bu ñu demee xool loolu bu ñu creuser dañ xam ne problème mu suuf Koungheul santul Camara lii la sant. ok donc par respect de par ñi ñooñu yaa ma laaj loolu parce que ñooñu aussi jox nañ ma ay cër yu baax yoo xam ne am naa devoir moral boo xam ne du ma tudd yenn yi. Mhm. mais bu ñu creuser problème mu suuf Koungheul dina nekk li ñuy wax jalu muus. dañ ko foogee feneen. non ah mais kan moo nekkoon le président commission domaniale du du du commune bi kan moo ko nekkoon. danañ si ñëwaat incha allah pour gën ko topp mu gën a leer. xam nga xam nga loolu. Ah, mhm. loolu euh, li muy wane li ma si bëgg a jeexal rek mooy li wane rek li ñu wane ne ñoom amuñu parewuñ pour yor dëkk bi wala ko yor koy si yor ngir baax yow mun nga ñëw fekk sa chef de bureau état civil état civil nga xam ne du état civil du caaxaan mhm. le chef de bureau a des formations yoo xam ne moom rek moo ko def. Mhm. kii di formation de dit des mhm. al approfondies. avant nga koy toftalal kenn. Mhm. pour mu pour mu légué ko yooyu pour mu former ko pour mu pour mu jox ko détail yooyu nga frustré ko suñu état civil du normal ci cinq ans yi man maa la ko benn. Euh, assainissement bi nga xamante ni mooy suñu fardeau ñun nga xam ne euh, su suñu coopération ñun xam ne ñi mu àndal ñoom dañu yàqoon coopération Koungheul ak yeneen réew yi. Mhm. ndax dañu leen yóbbu am dafa am ñoo xam dañ leen yóbbu euh, foofu par le bien de la mairie ñu daw jaaree fa mu indi ay jafe-jafe si diplomatie Mayacine mu defaraat loolu ba mu jur ay fonds euh, Fontenay-sous-Bois Suez euh, ay eaux vives di partenaire bu ñu doon jàppale banque mondiale dugal seen loxo ci assainissement ba nga gis dëkk bi nu mu mel ci wàllu cet te cet boobu di jur faagaagal créer ay conditions yoo xam ne wér-gu-yaram bi day gën a ñoom mm-hmm. loolu créer ay condition économiques yoo xamante ni day tax kenn ku nekk sa sa sa sa sa sa pouvoir d'achat gën gën gën a yokk créer attractivité wu dëkk bi ni mu def si environnement nga jël kooku noonu chef de bureau boobu nga xam ne moom si boppam si moment yi ñu jëlee ki nga àndal yóbbu ko mu daw moom si boppam yóbbu nañ ko mu def formation yoo xam ne niveau bon maa ngi koy euh, rendre hommage de passage parce que dañu sacrifier Ibrahima Badiane bàyyi ko Koungheul fii. Mm-hmm. pour que mu yore liggéey bi ndax ñun ñu bari kenn ku nekk yaa ngi dem yëngu yëngu si li leneen mu dem formation dafa dee dafa def def fa temps bi mu fa def ñu former ko muy niveau master master master master 1 ci domaine bi. Mm-hmm. nga ñëw avant ngay wax ak moom nga xam ne administration la les hommes passent l' institution la l' institution demeure les mm-hmm. hommes nga war ko fa bàyyi wala boog kenn koo xam ne mosul am adjoint. il travaille seul dans des conditions très difficiles nga ñëw bala ngaa réfléchir bala ngaa jël service. balaa ngay jël service ñëw ci. non attends balaa ngay jël service nga def nga def ay ay ay ay acte nga nga ay note de service yow jële ko service di def note di def note de service looy yàkkamti yow bool bi taajal nañ la ko yow rek yaa ko moom yaa ciy lekk looy loolu ko fot actuellement assainissement poste vacant la kenn nekku fa Koungheul nañ xam ne actuellement nii état civil chef de bureau bi poste vacant la service assainissement dafa vacant nañu xam ne amuñu comptable matière actuellement. mais ah, nga yokk si nag. foo jëlee nga yokk nga yokk si nag maire boo xamante ni xàmmewul ndeyjooram ak càmmoñam. mais foo jëlee fu nekk mën nga fa andi nit. waaw moom est-ce que nekkul tim ñi mu wóolu la bëgg a teg foofu noonu tim loolu tamit mën nga koo nangoo. Euh, Mata Mata encore une mm-hmm. du ñu seddalee xaalis li mu def seen que ay ñii ànduñoo la ak man dama leen di toroxal. ok amul leneen ñëpp xam nañ ku ngi lépp xam nañ ko te nag. yàlla bindu na ku dul bindul ku dul dee mais bind na ku dul torox mhm. je dis bien na ku dul dee mais bind na ku dul torox mais action yooyu rek la nekk di ma ne au delà de la mairie ana délégué de quartier yi ñi nga am problème ak ñoom. Mhm. ana waa daral bi te ñooñu amoon nañ processus boo xamante ni pacifiquement dañ doon dem si daral bi parce que ñun tabax nañ daral ba pare. du laajte bu jotoon bu xaaroon ba am document de passation du xam la mooy problème fu mu toll mu accéléré ko ñu yóbbu leen ndànk du am benn ñi ñi ñuy waaj a jëlee si entour alentour daral bi mais mooy suñu projet tabax mairie bi daf ko R plus 2 naxante ak ñoom ñu dem foofu ñu récupérer place bi y a la diplomatie qu'on devait exploiter qu'on devait exercer même bu dee day jël temps coût boobu coût bi mu doon coût bi mu war a am diplomatie bi lépp lu mu jaar dañ ko war a def pour dëkk bi mën a daal mu dëkk bi mën a daal actuellement avec ses pieds il tourne comme di jouer ay rôle rôle d'escorte dans son bureau il a beaucoup de choses à nañ xaar man maa la ko wax fii xam nga mosoon waxoon naa la ko si yaay Sow mu baal ma turam sama gaañ la sama gàmm la waxoon naa la ko fii dina wër nit ñi digg bëccëg pour baalu la daax tu du leen gis. Koungheul dinañ jël tort am na ko wax di wër magasin digg bëccëg te duñ ko gis man maa la wax loolu xam nga tax ma wax loolu. Mm-hmm. bon peut bu fekkee sujet am day ñëw ñu bañ si wax. mais <laughs> nit ñi duñ benn. kan mooy jël mooy entre Mayacine ak Alioune Badara Gueye. est a photo entre les deux mais tey ku nga a wax parce que ci ci kaw Mayacine nga bokk yéen a bokkoon équipe euh, ci xam nga xam nga xam nga li may wax nii lu tax ma ne mun naa wax leneen lu dul loolu. Mhm. man j'étais avec le gars qu'on parle waaw mais man dama lay wax rek. xam naa leen xam naa leen xam naa leen loolu. donc bu fekkee loolu ma wax ko. la campagne est ce que ñëw naa fi laaj la micro pour wax li ma xam si nit. Hmm. lu xam de day tax du question boobu de du suñu jikko du suñu jikko jikko woowuñu loolu te teg si dañu def ci dëkk bi loo xam ne même bu ñu demoon tëdd suñu kër yi nit ñi dañu war a ñëw voté ñu léegi nit ñi ñëwuñu bon am na ñu ñëw euh, malheureusement am na benn pourcentage boo xam ne li ñuy wax l'exode rural là euh, euh, ceux qui préfèrent être pauvre en ville que être riche au village gérer nekk ci dëkk bi xamuñu tradition wu dëkk bi xamuñu nit ñi xamuñu fan lañ ko fekkoon ainsi suite mm-hmm. les primo-votants yi nga xam ne dañ leen carte di leen voilà di détourner et comme gis nga ko même le président la république day subir la même chose parce que tout simplement idéologie yi wala boog tempérament yi wala fougue yi c'est un peu différent ci li muy bëri bëri on a des jeunes yoo xamante ni âgés lañ am mais ils sont matures. ils sont avec nous ñu ngi àndal mais dafa am benn marge boo xam ne doo ko mën a téye. parce que tout simplement doo xam foo leen di fekk ainsi de suite ils ne sont pas structurés de telle sorte donc yooyu noonu ku soo amee jàkkaarloog koo xamante ni euh, utiliser wul les armes non conventionnelles normal te téyewul xoolul yàlla si li muy wax xoolul yonent bi si li muy def kooku loolu rek résultat yooyu ñun nag même bu ko doon defaat tey. on va jamais utiliser des armes non conventionnelles bu ñuy ñàkk dañuy ñàkk dignement bu ñuy am dañuy am dignement li ñuy am. mais kon donc comme ñàkk ngeen problème am na mën nañu yaakaaraat ne juboo mën na am ba ngeen ñëw def passation bi. non passation mënatul am matal. Hmm. parce que boo xasee jël service yow nag ngay jëlee service génnee ay note de service di laaj passation de service. mais am na document yoo xam ne le maire seulement moo ko mën a moo ko mën moo ko jox. non loolu loolu je pense je pense je pense que le maire a rep bi bi ko préfet convoqué. Mhm. après juste après bi acte vandal vandalisme yi amee. Mhm. Euh, bi mu ko tontoo tontu na ko lu la nee na ko il est toujours disponible pour Koungheul et pour euh, l' autorité administrative lépp loo xam ne laaj na mu jàppale ko ci wala mu leeral ko pour luy doxal Koungheul. Mhm. pare na pour répondre mais parewul pour def li ñuy wax passation service ak koo xamante ni loolu boo toogee. haine rek lay jur euh, hypocrisie rek lay jur euh, frustration rek lay jur. c'est-à-dire ça tricherie la quoi en quelque sorte. pour non yow xam nga ni ñun duñ tricher. ok mu nekk lu am solo mooy euh, émission bi ñu dalal tey Modou Diouf Dakaw ay révélation yu bëri julli si comme ni ngeen ko déggee mais ci ci loolu duñ ci yem nag dañuy ñëw rek ci njeexital gi mais tey avenir u Mayacine Camara ci politique Koungheul. tey nga nekk kenn xam ne jéggi ko trop moment bi pare ngeen lépp fi ñu mooy passation bi te loolu mënut am parce que na yeneen loo ci wax yu biir je crois ko mais tey fan ngeen jëm ci politique. Mm-hmm. madame nous savons nous ignorons bu ignoré ne ñun am nañ euh, ci ñi nga xam ne kenn du leen jënd kenn demul si ñoom kenn sàccu leen kenn fenu leen kenn signalu leen contrat. ci commune bi déglu rek kenn déplacé wu leen électeur. mais am ngeen si ñoo xam ne jaay na seen ngor comme ni nga ko waxee léegi. dama lay dama lay loolu laay ñëw si laa ñëw. si ñi ñi ñu dese ñun ñi nga xam ne ñoo ñu voté. Mm-hmm. mooy ñi nga xam ne du ñu jaayee seen ngor te xam nga boo waxee jaay ngor sa mën nga frustré keneen ku dem voté ko alors que dañu leen induire en erreur moo tax souvent il faut que ñu def très attention ci li ñuy wax. Mm-hmm. ñun merewuñ benn électeur bu voté Alioune Badara Ly déedéet man personnellement te sama sama leader noonu lay fonctionner gërëm nañ ñi ñu voté gërëm nañ ku nga yi nga xam ne dañoo gisee neneen. waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo utiliser seen alal ñoo utiliser seen làmmiñ ak seen fabrication seen création ñi nga xam ne ñoo utiliser lépp lu nga xam ne moo waral euh, ñenn ñi dem te léegi nii tey yaa ngi gis man <laughs> j'en fais partie de l'équipe nit ñi fu nekk lañ lay ooyee nan la dañoo juum ah bien sûr fu ne loolu moom les rumeurs passent à Koungheul on a fait une erreur parce que premier acte yu waa ji def ci dëkk bi convaincre kenn donc depuis boobu léegi bépp acte bu mu posé convaincre wul kenn di nga ñëw rek so some ay nit ci dara ne leen génn leen génn génn génn leen fii alors que yow war nga xam exactement nan nga war a def ba ba dugal leen ci conditions yu baax di ñëw rek ay nit nangam nangam nangam di nga ñëw rek bundu xataal sa ay sa ay sa ay propre agent di nga ñëw rek dajji bureau bureau bureau bureau bureau bureau jàmbur ba pare nag njëkkalante dem ci télé bi arararararara nit ñi romb nañu foofu léegi. léegi ci avenir Mayacine moom fu mu jëm. Euh, avenir Mayacine tey nii fi may wax yow actuellement mhm. su au niveau national mu ngi euh, lancé li ñuy wax euh, deuxième phase TER bi ñu xam ne dafay jógee ko jam Diamniadio dem AIBD moom ak le président de la République ak la ministre des finances moom moo ko recevoir à l'AIBD loolu ku mu doy dara du la doy je te dis déglu rek déglu rek moo xam nga sànq nee naa la Mayacine lu sa dañ wax souvent si si yenn jargon yi pomme du mu new Mayacine mënul tëgg li ñuy wax mënul bokk si ñi nga xam ne ñoo def li ñuy wax euh, les politiques économiques réew mi mm-hmm. si ba mu ci dalee nekk si cellule ba DGPPE ba léegi xam en lon en large les diffi les difficultés financières de ce pays. Mm-hmm. xam naka lañ koy résoudre. Mm-hmm. bokk si ñu tëgg plan Sénégal émergent ak yeneen plan yi fi yi fi yi fi jaaroon yëpp tey tey tey tey tey tey tey nii président de la république dañu toog mu ne ñu man maa ngi taxaw dox man du ma fenn. kii li tax ma jox ko réseau ferroviaire dafa dëkku Koungheul am lien ak raay bi ba pare am xam-xam bu ma bu ma nawloo mooy mënoon naa ko jox lu ëpp lii ndax mérite na ko ci xam-xamam ak ci dayoo mm-hmm. waaye maa ko jox pour mu defar ma ko mais gàcce ngaalaama ma yaasin politique ferroviaire si diir bu gàtt la ko tëgg définir ma wax ko tey mm-hmm. définir lan mooy axe Dakar lan moo war a tax axe Dakar euh, Kidira pensant par Tamba ak agglomération Tamba bi fer bi euh, phosphate bi et cetera transport de masse bi au Mali ak euh, euh, yeneen pays yi nga xam ne moom la ñu voyagé pour indi li ñuy wax balance commerciale mu gaaw ñoŋal suñu tali yi bëri ñoŋal économie bi lan moo tax ñu mu war a def euh, tali Ziguinchor mu war a def raay Ziguinchor gerte gi produit agricoles yi wala boog ñi nga xam ñam yi nga xam ne day yàqu lan moo tax moo war a def raay Saint-Louis ceeb bi. Euh, euh, jën ji la moo tax moo def raay Kaolack damay junj rek. Mhm. pour xorom si xorom si ak gerte non déglu rek dama lay wax ne la dafa def benn dafa tëgg politique ferroviaire boo xam ne dafa jéggi Koungheul jéggi jéggi Sénégal lu tax may ne dafa jéggi Sénégal politique ferroviaire boobu bi ñu ko présenté le président de la République si télé lay wax lii day dem fu nekk. Mhm. ay bëñam feeñ na parce que tout simplement won na ko lu tax ñu war a def lii. ñaata lañ koy defee fan lañ koy defee kañ lañ koy def nan lañ koy defee lu muy jural Sénégal ci wàllu économie waaye lu muy jural Sénégal ci wàllu koom-koom lu muy jural Sénégal ci wàllu sécurité routière mm-hmm. ainsi de suite lu muy jural sport bi ci wàllu décongestionnement ainsi de suite lu mu mën a wax mënu ma wax yëpp fii donc loolu li mu jural li tax ma ne li tax ma ne loolu jéggi na Sénégal baal ma terminer rek li tax ma ne mm-hmm. jéggi na Sénégal politique ferroviaire boobu noonu tegal canadiens yi ñëpp ko doon ñu accepté financé ko à cent pour cent écartement standard deux voies autoroute heure boo ko gisee Sénégal ci front Mayacine la jaar 2023 la ñu commencé projet bi tëral benn tal lal benn raay bi ba ba Kidira lalaat beneen autoroute raay di nga ko gis Sénégal bala ngaa dem bala ngaa sangoo suuf te ci front la moom. écartement écartement standard deux voies ba pare tey yaa ngi dégg ne euh, le grand terrain du Sénégal ñu ngi waaj déclenché pour dem ci euh, gàmmu gi euh, Tivaouane. parce que le président de la République était très content accélérer son ministre des finances pour mu développer li ñuy wax euh, milliards yi nga xam ne du ma tudd nombre bi moom moo war a yi raay bi en attendant que projet di ñëw pour raay yi mën a mën a mën a mën a mën a dox créer ay société de patrimoine créer société de de exploitation G GTS euh, les grands trains du Sénégal. yow yaa ngi def bilan au ministère ba non déedéet dama la bëgg a wax ne la cest dama la bëgg a wax. ça montre que ne kon euh, remaniement bi ñu dégg kon maillage am 1100 mu yor. Euh, maillage kii euh, Matar. Mhm. yow sa bopp xam nga ni actuellement nii fi ñu toll nii Sénégal. Mhm. si ku comprendre lan mooy politique économique yu réew mi. Mhm. ku war a coordonner les actions de l' État. c' est Mayacine Camara. ok parce que il était. d' après avec avec avec Pierre lu ko yàlla yërëm gaañu na. Aboubacar Sadikh Bèye mu ngi liggéey lu rëy ci po ci ci ci port bi. Euh, euh, euh, Ndiir mu nga ay mu nga ANSD Matar Cissé def na wàllam dem na. te moom position bi mu nekkoon moom rek moo maîtriser politique économique bu Sénégal moom moom rek la affaire bi jaar ci ay joonam. looy loo sànni ministère des finances ñu impliqué ko ministère yëpp la travaillé moom rek moo war a mun a coordonner les actions de l'État pour def li ñuy wax les dépenses yu nga xam ne dafay. Euh, euh, dafay rationnel. xanaa kon poste premier ministre lañ koy jox. Mayacine mérite na nekk le président de la république du Sénégal honnêtement. parce que am na yar bi. Mhm. am na xam-xam bi am na juddu bi. am na jikko bi te gëm na réewam bëgg na boppam. bëgg na te modeste na nag gis nga Kër Mayacine fekkoo ko mu am ay suuf yu dul jeex comme ñeneen ñi. Mhm. nga xamante ni kenn xamul ban fan lañ jaar ba am alal. ba am alal léegi la nga ñuy wax tey seen politique Koungheul parce que seen militant yi doog di xaar ñii ne Mayacine dem na ñëwatul kenn xamul kañ lay ñëw nangul ñëw militant yi commencé nañu jaaxle loolu lañ jox ci loolu. Euh, militant yi mënuñu jaaxle parce que dañuy jógee ko mhm. euh, ku ne xam na ne Mansour Faye dafa gagné commune am te commune la am. Mhm. Euh, xam na ne ñu ngi doon waaj a ubbi terre bi. Mhm. loolu waroon nañ ci communiquer. Mhm. parce que Mayacine dafa ñëw fekk terre bi am problème ñëpp xam nañ ko problème bu dul jeex mu coordonné ko ci état wu liggéey bi coordonné ko ci impacte yi coordonné ko ci société yi nga xam ne ñoom ñoo ko géré woon société d' exploitation yi créé société d' exploitation yi séparé responsabilité yi te coow jibul gi déggoo ko mu toog si benn télé wala rajo di ko ndamoo wala di ko def mhm. c'est le c'est le c'est le secrétaire d'État en charge des c'est lui c'est à lui seul qui le faisait avec beaucoup de difficultés ak Youm gàcce ngaalaam Mansour Faye mu ñëw libéré ko mu liggéey gis nga ko inauguré nañ terre bi mu ngi dox ba pare créé nañ société de kii bi patrimoine beeg bi nga xam ne moom moo koy moom le fonctionnement bi ba pare ñu ngi lancé nañ tey deuxième phase bi Macky Sall problème yi mu am si terre su gisoon buntu bu leer dina laal terre dina laal terre dix neuf kilomètres pour vingt et un mois loolu lañ déclaré tey gàcce ngaalama Mayacine ñun ñun dañu gëm Mayacine parce que tout simplement gëmuñ ko parce dafay politique dañ ko gëm parce que da ngeen fexe ay emploi am foofu noonu na ku ma interpellé ne ma voilà Mayacine terre bi mu ngi nii jëluñu xam nga doon jël balaa balaa ba da nga fàtte ban date lañ joxe woon ne lañ ko war a mhm. boo fekk na Mayacine nekkul ministre mu ne mun nañ ñëw rek dama lay wax rek mun nañ ñëw si loolu pour nit ñi xam ne euh, Mayacine du du fokkewul pour loolu koo xamante ni am na yoo xam nga ay kuréel yoo xam ne emploi décent la leen mayal suñu utal te mosu ko publier si télé. waaw ah dëgg loolu dëgg entre nous on se dise la vérité du ma tudd seen tur mais xam nga kuréel yu bëri yoo xam ne emploi décent lañ am te def ko ci internet. te moo ëpp nombre yu nit yi di wax te bu tax rempli que nombre yooyu c'est fictif yoo xamante ni dinañ di jafe-jafe balaa ñu balaa ñëw. li ma la mën a wax si si si si Mayacine bu fekkee foofu la ñuy terminer si mhm. mhm. le plan national lu leer la. déjà localement. Euh, si laay profito euh, di invité vraiment ñëpp ñu nga xam ne ay euh, soppe Mayacine lañ parce que ñun famille lañu am amuñ ay ay militants. Mayacine mhm. gëmul loolu ñëpp benn lañ ñun famille lañu am la famille politique de Mayacine ñu ngi leen di invité suba à 16h ku mën sax nañu añee fa ngeen saafowante ak seen leader mu ñëw indi leen airu fierté bi nga xam ne moom la liggéeyal Sénégal actuellement waaye ñëw waxtaanaat ak yéen. si ay perspectives euh, yu yu bees parce que géopolitique Koungheul bi changé na changé boo xam ne nit ñi xam nga yeewu nañ fi ñu nii. Mm-hmm. parce que mun nga tromper peuple bi yëpp mais du tout le temps nit ñi ñu ngi kii il faut loolu ñu toogaat waxtaan ak ñoom parce que mënuñ leen mere Koungheul mënuñ leen mere parce que Koungheul bu ñu ko meree li ñu fi jot a def bàyyi fi ay projet assainissement wu 2 milliards presque bàyyi fi ay tali yi ñuy defar bàyyi fi université bu ñuy tabax bàyyi fi bàyyi fi bàyyi fi bàyyi fi euh, bétuwaar bu ñu war a <laughs> bu ñu tabax bàyyi fi gendarmerie bu ñuy tabax bàyyi fi police ak euh, euh, passeport bàyyi fi euh, yeneen ak yeneen yoo xamante ni mun naa ko bañ mun naa ko bañ a tudd kooku boo ko bàyyee mu suux day sànku sport bi mënuñ ko bàyyi mënuñ ko bàyyi mu suux ñun ñëpp on s'engage. kon pare ngeen ko jàppale équipe bi fi nekk. non non mënuma wax loolu pare nañ pour jàppale Koungheul. lu mhm. ñu seetaan Koungheul lépp lu ñu doon def Koungheul benn. Mhm. tey dañuy def fukk bi. loolu moom laa la mën a garantir parce que ñun encore une fois ak Koungheul c' est la famille. c' la famille ñun ñëpp ku nekk ku xam maillage xam ne ñu ngi koy wër fu nekk bokkut ak koo xam ne day day day renforcer ko. xam ne day def ay ay ay trafic d' influence. day def ay ay ay manipulation ko soxla fépp si monde bi bu ko Koungheul soxlawul day dem feneen bu ko Sénégal soxlawul day dem kooku amul problème dund mu mel ni man mi nga xam ne maa gën a ñàkk solo si moom. léegi ci politique yi des compétences. attends ñu euh, euh, euh, loolu yëpp ñu ngi xaar vraiment ci parti la nekk. Euh, encore une fois waaye tamit ay nit ñu bëri ñu rekk nawloo leen bokkuloo ki nga xam ne xaalisam lay fay pour falu. moom tey déglu ñëpp ku nekk wax xalaatam moo ko yóbbee lii. donc dañuy dégluwaat ñëpp fu ñu defoon erreur ñu ñu joyanti mais déglu aussi parti bi nga xamante ni mu neex mu naqari c'est lui qui incarne le leadership départemental parce que c'est le ministre. au niveau des du conseil des donc loolu yàlla moo ko def. tey tey léegi léegi léegi nii <laughs> il a quitté avec avec il a quitté là-bas pour ñëw Koungheul tey ma annoncé waale leen ko dina dem euh, ñu ngi ñaanalaale di sàkku ñaan si suñu xarit Mor Dio si bi nga xam ne tey falaa waroon nekk émission bi ak yéex a yegg si moo tax demaguma xam na ne lu mu gudd guddi dinaa fa jaar. Mm-hmm. sàkku ñaan si moom mais suba ñu dajale Koungheul yëpp ñi nga xam ne famille la du ay militants buntu kër kër Mayacine ñi fa mën a añee añee fa ñi fa mën a añee séeréer séeréer fekk leen fa ñu waxtaanaat. waxtaan bi nëbuñu ko kenn même presse bi su leen neexee mën ngeen ñëw bu leen neexee invité nañ leen sax d'ailleurs invité waale yeneen presse yi nga xam ne ñu ngi seetaan parce que xam naa ne émission bi dina jàll balaa balaa bët balaa bët set mhm. donc loolu mooy avenir politique u Mayacine ñun on se précipite pas ok voilà on se on se précipite pas te te li am solo mooy lii du dara lii lii on on va revenir plus fort ma tax da ngeen ñëwaat plus fort même ok ak benn ak on va revenir plus fort. on va revenir plus fort kooku loolu je crois que mooy kàddu gu mujj gi ci émission bi. Hmm? luy kàddu gu mujj gi looy tàggatoo. waaw xanaa gërëm leen rek. Uh-huh. Euh, di gërëm aussi Koungheul waaye comme noonu ko moom ma ko waxee sànq. Uh-huh. xam ne am nañu juum. Uh-huh. waaye duñ leen ko jàppee parce que xam nañ ne buñ taxawalee ñaari nit ñi doon xëccoo am na ñu bari mais ñaar ñi nga xam ne ñoo toppalante woon. amul si benn côté bu kenn ki dabee kële. du si yar du si jikko du si juddu du si xam-xam. Mm-hmm. du si liggéey du si dara. donc loolu xam nañ ni ñoom xam nañ ko tey euh, ñi nga xam ne mën nañ jàpp ne tooñ la wala ay mbir la jéggal nañ ñëpp ñu ngi ñaan ñëpp ñu jéggal ñu ci turu yëpp ah parce que sañ naa sañ naa ko wax waaye ñu ngi leen di oo mm-hmm. ñu ngi leen di pour ñu gën a dal parce que Koungheul ñun ñëpp ñoo ko bokk. waaye lii yàlla buy defar day mel ni kuy yàq day tax nit ñi xam ëllëg vraiment. fan la ñuy teg seen tànk. fi nga teg seen tànk voilà du duñ jël n'importe qui rek. n'importe quel moment n'importe où di ko fa di ko fa jël ko xool di ko fa. di ko fa di ko fa teg loolu yàlla moom bu naree defar day mel kuy yàlla. Ah, voilà kon daal dégg ñu war a am ko dégg di kaaw lancé ci émission bi tey mu nekkoon suñu gan ci premier numéro dalal gan après les élections locales euh, mu ñu koy continuer ak saa su ne fii ci biir kër gi chaque weekend bu nekk rek dañu am kenn ko xam ne dana fi jaar ñu waxtaan ak moom ci parti bi mais waxtaan ak moom seen taxawaay ci biir Koungheul surtout ci élection législative yi xam ne jëm nañ ci ci émission yëpp nag danañ ci teew comme Cheikh Rama dana fi ñëw ci yeneen émission indi leen a euh, liggéey neex na leen ci loolu lay demee fii ci biir xibaar bambuk di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp ñi xam ne ñu ngi leen suivre fii ci biir kër gi di gërëm suñu gan Mamadou Diouf di kaaw ci yoon bi laa ko wooyee ko damay démarrer sama émission tey dalal gan foog nga jaar ñu waxtaane ko mu waroon dem Sine Matar mais mu foog ma ko ñëw toog ci plateau bi noonu lañ ko ubbilee ñëpp nag kër gaa ngi noonu ku nekk war na mën a woote rek pour ñëw ñu ko waxtaane fii ci émission bu mag bi di dalal gan jërë ci biir kër gi jërë ngeen jëf waay